doy na waar doy na waar. Bécaye Mbaye. Bécaye Mbaye doy na waar Père Bécaye. nee na lamb Père Bécaye ak Père Birame Ndiaye Mbaye maa la dàq. Père Bécaye ak Père Birame Ndiaye xam nga ñu wax ci lamb ji. wuy ma nee na lii musta kenn musu ko daanee nit ci àdduna. wuy ma ni ma daanee kii. wuy ma wuy ma wuy ma kii ni ma ko daanee dafa ruqee dafa ruqee fi mu ne suuf la dafa suufee. ay waay ma wuy ma yóbbu leer waay. Kétiop ah wuy ma rek. Kétiop bu fàtte da ngaa neex daan rek. wuy ma wuy ma soo waxalee yàlla rek. wuy ma xam ne maa la mën. waaw ah, léegi nan laa def ba daal la. noo ma daale. waaw mais yow boo yow yaa ngi commencé bon de. loolu nit de. yow nan laa la def. yow mais tu tu honte pas hein. mais tu es un yow tu as une feuille fourchette. mais toi. yow tu es fou. mais toi tu es folle. yow yow yow yow en français yow moi. tu es un banana de fruits. non toi tu es un. non tu es tu es un tamarin. tamarin.

bu seeyam <laughs> yoo lele di nga xam ne man maa la man alaaji yoo lele bi ma la jàppee dama laa duma buuse yow gëgëgëgë yoo lele xam nga ni xale màgg na alaaji yoo lele waaw waaw. li muy réeré yaa ci gën a neex a daan. kéccob yow gëgëgëgë yoo lele. li ma metti sax gémmiñ gee rëy rek yow waaye maa la mën. man su ma doon wax damay jël sama téléphone di si na kenn gisu ko yoo lele. alaaji man maa la mën billaahi yoo lele su ma la jàppaatee bu xaadim jaaj ñëwul gauche droite ñëwul njoogu ngay ñëwul dinaa la duma lu metti buuse yow ii bu ndaw yoo lele kan mooy am yow Omar Sow ak Pape Diouf ñoo ko bokk di daanu Omar Sow ku bëgg Serigne Touba mu bëgg la. bàyyil sama nit ko say nit. très bien bàyyi ma samay bos. très bien say nit. très bien. Omar Sow taalibe Serigne Touba la ñëpp la bëgg moom Omar Sow. ci ko gë gë gë yoo leen kii du mis. mais xam nga. combat yi war a dem war a kii single lay doon single de lancement <laughs> bi la war a. kon garaajo dugalal Omar Sow automatiquement. seen combat dafa neex. Euh, balaa may ñëw ci duo ji euh, après nga ñu mooy may ñu ñii seen combat ñoom ñaar ñu commenté seen bos. ñu ne seen combat euh, neexul de. <laughs> non boobu boobu la la neex. boobu la neex garaajo may ñu élément parce que man. yow yow moom. garaajo préparé ni moom ak wulli préparé ko ak Lirou Diane waaye daanaka waaye daanaka mais ma Omar Sow pour ñu wax ak moom. parce que réseaux sociaux bi. Mm-hmm. mi ngi toj. maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xamante ne ñu ngi seetaan yëpp. maa ngi la wax sànq parce que dañu ànd ak ay partenaires. bokk na ci waa LB nettoyage ah Bamba Dioum ak Lamine ak Lamine Diop euh, ñu leen di gërëm bu baax waa LB nettoyage waa Eco Pro ñu ngi